mu ne ku daan lekk alal nit ñi ci turu diine bu ëllëgee sun borom day réyal biiram ba mu toll ne ay pale mbaa ba mu toll ne ay néeg yu yaatoo yaatu sol ca nag ci biir yooyee ay jaan ak jiit ñi di ko mettital di ko màtt te du dee ba noppalu te mu ne biir yu rëy yooyee yu yaatu yooyee xet gu da génne goo xam ku bokk ak ñooñu ci biir sawara da nga am metit ak ngaañ lool ci xet gu naqari googee bàyyi ko ci seeni biir nga di ko yëkk mu ne ku daan lekk alal nit ñi ci turu diine bu ëllëgee